fait partie des premières écuries du Sénégal sport tey je me suis dit que ni ci laa jógee waaye ci victoire avant défaite ça veut dire que nii la mais face fa mu nekkoon fa mu nekkoon ci écurie ci dynamique ba léegi fa la nekk tey ba ci tegal sa bët tey kenn ñu waxu la tu ma ne teew ñuy nataal man kay dañ maa sauvé sax dugal ma sa oto pour ma rëcc ndax yenn booy nee nañu man <laughs> damaa faral beneen côté bi. mooy day excité xam nga mais tontu nga ndax koo dugal ci sa oto kooku xam nga ni du ku ñuy moytu. <laughs> waaw loolu loolu la xam nga Fass équipe bu yàgg la. te kër goo dugg ci Sénégal rek am na supporter wu bu nekkul maire ba nekk paa bu nekkul paa ba nekk sëb yi. parce que loolu loolu nag wax dëgg yàlla on est le seul bu ko te nag mag yee ko fi ñaan parce que dañ bu ñëwee Fass sa xel day nekk ci jagsaaw bu ñëwee Fass day day def sa xel day dem ci ah, kë kër Moustapha Sy Djamil cest à loolu su suñu kilifa yi ñaan nañ ko bu yàgg loolu nag sant la lu leen sant la et puis tamit ñu fekk tamit suñu papa yi def benn trajet boo xam ne xam du suñu liggéey maam Gorgui Ndiaye Mbaye Guèye Moustapha Guèye Gris Bordeaux loolu ñoom liggéey lañ ma loo xam ne peut-être man dama ñëw rek xam nga su mu fi ëllëg tamit mu fi ñëw loolu suñu liggéey. mais nag une victoire de Gris ci combat bi ak envergure bi combat bi am. Hmm. dina gën a rehausser l'image de Fass. mais une défaite aussi dafa ñu ko yàlla. victoire victoire rek <laughs> victoire rek moo nekk suñu xel te moom la ñuy liggéey parce que ñun xalaatuñu euh, xalaatuñu leneen te loolu la ñuy ñaan suñu borom te ci loolu ci benn bu loolu nekk te incha allahu rabbi xam rek daan Balla Gaye wax dëgg yàlla parce que man daan naa ñu ko daal daan Balla Gaye dama ko war a daan xam adversaire la. c'est-à-dire dama ko war a daan mais daan ko nepp c'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que daan naa ñoo xam ne peut-être nit ko xam nga dañ ko daan am mais incha war rabbi. mais sa copain Eumeu Sène il paraît que yéen a ngi kii mi ngi lay jox ay ficelles parce que moom daan na waa ji ñaar am moo ginnaaw gis ma parce que le le combat nekk moom baaw pendant trois mois mais c'est un ami mooy ñaanal yàlla ci lépp lu mu dugg rek yàlla may ko ci jàmm parce que yéene bi mu am ci moom moom la am ci man mais dëkkandoo la suñu diggante dafa mës a am estimation ma dama ko estimer ndax comportement am c'est un gentleman correct man it moom it loolu noonu la estimer ci man ba yàlla def ñu am ko habitation tête à tête ça veut dire que bu taxawee këram ba taxaw sama kër kër mën nañ bu wax ça veut dire que loo kooku léegi dépassé na sa cadre. mais wax ngeen ci combat ma ah non ñu wax ci combat parce que tamit moom face parce que man je me suis dit ni lépp lu mbër di uti ca àll ba rek. yàlla daf mu suturaal maam quand tu parles d'un lutteur expériment munoo bàyyi Moustapha Guèye c'est un technicien xam nga tey nga wax Mbaye Guèye maanaam tey lépp lu mbër di ñàkk rek yàlla dimbali na ma ba nga xam ne tey du ma koy jékkaani fenn du ma ko yóotu fenn Moustapha Guèye nekk sama wet Guèye Camara nekk sama wet Abdou Guèye nekk sama wet Mouhamed Ali Ndiaye champion du monde nekk sama wet ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne am Ibrahima Mbaye nekk sama ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey mu li ñu xam ci làmb dama ne du mën a ñëpp xam xam ñëpp ko xam ne waaye doo soxlawu ma jéggaani fenn mais nit dina ma yéene ci xam ci leneen ak leneen waaw ba pare li ci gën a doy waar tey ñoo ngi ci open press bi yay am ci yeneen équipe open press du mës am face amul daw làqu amul dara nous sommes seuls contre tous fii équipe face képp contre dong nga fi gis open press yi day mel ni day mel ni sabar bu tas mais open presse bii y a que des leaders face digne d'être façon amul lenn y rien d'autre te ci dynamique boobu lay dox moom loolu laa ñëw fekk suma mag di ci dox te loolu laay doxal ba keneen di ñëw di doxal loolu on est seul contre tous te incha allah ci dynamique boobu la nekk. le 31 on verra le vrai tigre. incha allahu rabbi ñu ngi woo ñëpp incha allah ci kàttanu yàlla samedi. Euh, samedi incha allah danaa ñëw ak ay bagages yu bees tax di woon ak ñëpp su ma nee damay woon ñëpp parce que bés bi euh, bésu ndakaaru la géejawaay ci biir Dakar la ne te équipe de ci biir équipe ci biir ci biir Dakar la tey ñun ñooy Fass te Fass nag mooy équipe de Dakar ça veut allah ndakaaru yu jóg dana sat ndakaaru ndakaaru mooy jóg. dem stade incha allah ñëw gérer combat bi gars yi yëngal ci kaw man ma yëngal ci suuf. bu ñu tëjee barrière yi bi jën seen diggante man ni samedi. incha allah loolu sa habitude la. Hmm. xam nga ko di woo ñëpp. di woo autorité. say supporters nee nañu. Gris ba woon te Eumeu Sène lañ soxla. moo nekk nii moo nekk nii ma ne comme yow leader d'opinion nga. loolu dañoo bëgg nga lancer message ci xale yi ñuy jël. loolu moom. Euh, loolu moom comme li may wax rek la dernière fois suñu dernière euh, face to face que bi muy ubbi ci loolu laa ubbee parce que phénomène bu catastrophique la parce que tey euh, yu mel noonu ci di enlever xale di ko rey tey dañ ko doon dégg rek wala dañ ko doon dégg rek wala di ko ci film yi ay Amérique la doon am les pays les xam xam nga yeneen continent yi lañ ko doon dégg waaye wax dëgg yàlla man ay gént la nekk ci man dëkk dëkku Cheikh Ahmad Bamba dëkk Seydi Hadj Malick dëkku Cheikh Seydi Limamou Laye dëkku bu Kante tey ñun euh, daf daf ñu daf ñu ëlëm daf ñu ëlëm tey parce que tey xale pour mën doomu aadama doomu aadama bu mën a néeg ba ko mën a diggante moromam ak morom di ko def naka suñu noonu waxtum xale bi nga xam ne mënul boppam dara di ci di ci di ci di ci impliqué euh, son excellence euh, président de la république ak ministre de la justice euh, kii nu mu tudd. Aly Ngouille Ndiaye di ci di ko ci impliqué parce que tey ñooñu rek ñoo ñu mën a jàppale ci loolu di tamit di lancer appel ci père de famille ak mère famille. nañuy bàyyi xale yu jigéen yi. wala xale yi am ay cinq six ans di leen di yónni ay boutique parce que dafa am ay euh, mère de famille ak père de famille yoo xam dañu xaw a dañu xaw a sàggan ci côté boobu. parce que xale vigilance dafa am importance. mooy xale bu ndaw bu am quatre ans cinq ans nga naan da koy yónni boutique bu jàngee wàcc école yooyu c'est des yoo xam ne à éviter. di ñaanal di wax ni daal loolu daal. rendez-vous le 31 lu may naxarul la. rendez-vous le Balla incha allah Gris Balla daf laa jox une minute yow ñaata minute nga ñuy appal ak say supporters Balla joxuma ko dara oh. xam lu ma ko jox oh. bëre daan ko ñibbi